مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بن يالا ديمالي ني نيو نياسان نياسان دا فا نيك دك بو ام سولو داخلان كي كان خامني moom moo taxawal Ndiassane Cheikh Bou Kounta boroom cër gu am solo la kenn du fàtte calalem ni dafa dem fu sori day dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon boroom cër la te mu am liggéey bu am solo boo xam ne liggéey na ko liggéey na ko si lislaam bi wax naa ne amuloon bëgg-bëgg lu dul fexe ba dundal sunnatu rasulullahi fexe ba taxawal ka luy wane ni noonu la def nee naa soo demee kër maam El Hadj Malick fekk fa soxna Mariam Kunta soo ñëwee kër sëñ Touba fekk fa soxna Astu Kunta soo wëree këru diine yépp daa fa fekk cëru daa fa fekk cëru waa kër Cheikh bu Kunta xalif bii nga xam ni mooy Cheikh bi Bekkaay Kunta ñëpp xam na ni ba mu nekkee Kaolack mi ngi woon si wotu Baye Niass jële fa lu bari si moom kon wax dëgg yàlla Njaasaan wax nañ fi jànge lu rëy moo tax ñu ñii nga xam ni Sénégal lu nu bëgg Sénégal lu nu dunde Sénégal moo nekk suñu xol ñu àndandoo ñëw fii si Njaasaan ñëw taxaw bokk ci bés bi màggal rasulullahi sallallahu alayhi wa waaye màggal Cheikh bu Kounta thème bi nag am na solo ndax Sénégal gi dangay ngay jaaxle man sax fii danaa wax ni jaax na ñu wax ARTP mu gën taxaw si réseaux sociaux yi ndax li nekk nga see dégg te perte de valeur rek moo koy indi Sénégal nag waruloo man am taxawaay bu ñaaw soo amee kilifa yu mal na Cheikh bu Kounta am ka fii maam El Hadj am ka maam Cheikh Mat Bamba am ka maam Ablaye Niass ak yeneeni kilifa Seydina Limaamu ay yeneen kilifa kon wax dëgg yàlla sëñ Cheikh Tidiane si dafa ma mas wax ni ma senegaal ñun waruñu ñee kenn ndax mag ñu baax ñu nu yàlla jox si diine duñu ñee kenn si ay jukko yu rafet duñu ñee kenn kon xale yi ak Sénégal yëpp nanu jël seen bët tàbbal ka si jaar-jaaru mag yooyu suñ fa du duñu perte seen valeur dëkk bu perte valeur am nag kenn du xam fan la jëm fa mu jëm yiw di fa nekk kon nanu delloo si si li nga xam ni mooy jukko yu rafet yu war doxal Sénégal jukko yooyu nag ñun moonu lal bëgg sa réew di doxal responsabilité ak di doxal dëggu moo tax ñu àndandoo pour jariñ Sénégal ñu àndandoo ba fas yéene taxawal liggéeyal Sénégal ñu waxtaan ak porte parole bi waxtaan gu rafet waxtaan goo xam ni Sénégal yépp mën nañ ci jàng lu bari jóge fa dem ci xalif général mu ñaanal nu kon wax deug yàlla ñun sunu xol sedd na yàlla nanu yàlla may ñukay koy ati at yàlla na yàlla may wér xaalis bi ba mu yag jité communauté bi مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على